moom nag mooy xool ñoom duñ ci yokk boobu jamais dañu on a le droit kon kay jëlu ñu bind la préfet. préfet mooy xool mooy xool. Mm. ndax lii mën a jur ay. ndax ñii seen yéene mooy taal dëkk bi ndax bu amee dana am ñu dee ndax musiba la jur ci réew mi mu nekkoon kon dafa y a risque de trouble à l'ordre public yoon ko est-ce que bu amee moom mën na contenir mën na am policiers yu doy sëkk. pour que même bu amee rayante policiers yi mën a taxaw jàlloog ñoom. préfet ni lii ma gis. doyuma. surtout ñi di menacé naan dañuy taal deux cent mille personnes la soxla pour déloger Macky Sall soo ko wax na ko la wax ko. Macky Sall aussi l'avait dit du temps de maître Abdoulaye Wade. man de waxuma waxi daaw ak waxi naa fekk waxi di teew yéen dama ci laaj laay tontu. ma ne waxu daaw ak waxu daaw ak si surtout dañ ciy waxaat dañ ciy ñëwaat waxu daaw ak waxu barke bi dañ ciy waxaat question naa fekk laay bañ dama ni ma ni ci li këtt di joon liñ toll nii. di ci wax. mais c'est juste pour vous dire mooy mooy préfet bu interdire manifestation. c'est juste pour vous dire que. non mais réewum Sénégal ak ah, fu mu toll nii Euh, voilà si jamono yëguma ko dégguma ko intéressé wu ma li ma intéressé daal li lii ñu toll nii parce que kon pourquoi wax leen problème mu Masmoud Diop candidat la woon ak ay Mamadou Dia yooyu weesu na temps yi benn dof mooy candidat di sonal nit kon ñi lañ defoon intéressé wu ma. mais tey jii maître dama ni ak ñu nekkee tey jii voilà problème mu préfet bi. waaw ak li tax droit de manifester. am limite pour Sénégalais yi may déglu. ñu bañ a dof loo naa fekk yooyu soskat yooyu. manipulateurs yi gëm loolu leen ni dañu leen a jaay doole ay dañuy manifester ku ko wax ngay fen yoon moo ni ginnaaw nga jox bataaxal bi préfet ni ko mën de bis sàngam dama bëggoon a manifester yaa ngi may déglu. xanaa da nga fàtte mu ngi nii préfet ni hmm. préfet ni hmm. dagg sama bopp préfet ni gars yi sax bëgg nañu xam loolu nee nañu à chaque fois soo wax da ngay fomp rek après xam naa du ñàkk balaa émission bi di jeex ci indi ay leeral waaw ku nekk ak sa ak sa ñàkk yaa yaa ngi ñàkk am yow amuñ xam ne amuñ benn énergie xëy na man damay dégager énergie d'accord xam nga loolu la ngi ci préfet bi <laughs> ab yambar moom mën na wax ba pare suñu mm-hmm. dama ni préfet bi mm. moom la yoon may waaw Ibra Penda Barji Ndiab Bité Idrissa Niang El Hadj Diouf bu ñu bëggee di manifester dañuy bind préfet préfet moo am droit ni ah d'accord naa ndax gisuma ci benn danger. waaw préfet si moo mën ni li ma gis li muy saf neexul ndax ñi indi nañ tension la l'atmosphère est électrique la situation est délétère ma pose léegi benn question la. ndax ko neewul na 200000 Sénégalais dañoo fekk ma place de l'Obélisque ñu dem déloger Macky Sall. loolu ca manifestation bu njëkk ba <coughs> waaw boobu moo dañ ko autorisé woon. <coughs> waaw d'accord naa waaw. déjà man nee naa booba. Hmm. d'accord ak préfet bi. lu tax waroon na bañ. ah mu bañ ci ñaar yëpp. ndax daa wax ci beneen bi. bu yàkkam di penda dama men met nag gis nga nag kaa bi nag mu ngi dem de tama dama bëgg ñu wax ci dama bëgg ñu wax ci mooy question bu ne Sénégal yi am ci lu leer bala ah taa bi nag suy dem dalaa war a intéressé parce que dañoo war a ñëw wax ci PTP ak ci yeneen ak yeneen kenn mënu ma cofloo réponse waaw damay répondre moom leer ma ni fi mu jógee lépp dama ne préfet nee nañ ko boo ñu autorisé ou pas ñun daneen marché dem ci palais bi soxla naa deux cent mille nit bu ñëwee ma délogé Macky Sall ñun la loolu ci manifestation bi ma ne man bu doon maay préfet man hmm. du ma autoriser marche euh, boobu ndax man doo menacer insurrection euh, attaquer institution bi doon le président de la république def coup d'état pour jëlee ko fi la deux cent mille personnes nañ ñëw place de la nation pour ñu dem déloger Macky Sall wax na ko. préfet da ko autorisé parce que dafa xam ne état de droit lañ nekk. et que manifestation def ko man El Hadj Diouf. barke alxuraan du ko autorisé. d'accord man dooma ma yëpp man nga laaj ma loolu ba pare bëgg a yëpp président de la république yëpp Sénégal mi sol président pour cinq ans maanaam jeexagul mel ni yow daal yow yaa moom Sénégalais quoi yow daal da ngay dem déloger président remplacer ko. d' mais maître ci kaw ci kaw waaw dama ñu ci beneen point bi waaw mooy deuxième manifestation bi. waaw pourquoi ñu interdire ko. da sama encore waaw dañ ko war ñaar tax na war nañ ko benn bi na sëkk mooy un mois avant démarrage campagne électorale bi may ñu benn parti benn candidat muy def manifestation boo xam ni dana génn dana fës day mel ni ay campagne pré campagne dañ ko interdire. tous les partis doivent se montrer discrets. d' accord naa. kon préfet boo wootee grand rassemblement mu mel ni bi nga defoon parce que bi nga defoon amoon na booloo quand même nga woote waat ci bi aaye nañ fii ba campagne bi commencé le 10 juillet. waaw kenn amatul droit def manifestation. bu mag boo xam ni day niru campagne. waaw kon préfet am na droit interdire kon ku taxaw ni keroog waruñu woon a interdire manifestation boobu jàngaloo droit wala boo ko jàngee téye malhonnête. d' accord mais ci kaw Bara Dolly ba tey comme ci mbirum justice lañ taxaw maître. dama bëggoon xam 30 jours avant le démarrage de la campagne électorale il est interdit toute manifestation bu ñu mën a wane ci télé wala ci rajo. d' accord bu mel ni campagne. maître est ce que toog Sonko dina def meeting place de l'Obélisque duggee ci télé rajo yi. mais dañuy gis aussi euh, l' autre bord Bokk Yaakaar ñoom tamit à chaque fois ñuy woote seen ay conférences de presse. man waxuma loolu xam mm. ay wujjee. ay kenn ayul conférence de presse parce que Sonko chaque jour démb rek def nañ de presse. mais maître euh, Kaawu ah, Ba ay dem boo def de presse. maître dëgg ay jeudi pour casserole. ko kon kenn ayul ko conférence de presse. casserole dinañ ci xam nañu ay. rassemblement. d'accord ma campagne bi dégg na. waaw d' accord xool ma fi dama ni. wala euh, ci kaw baara doole ci kaw baara doole ma bëggoon nga leeral ma foofu. parce que dañoo wax ni dañoo wax ni euh, comme député la depuis lors euh, ñi ngi ko teg foofu rek kenn àtteegu ko janagul ak ki nga xamante ni moo di juge bi ma bëggoon xam ci loolu. ani tey ji yoon la yoon lan la ci wax vu que ni moom député la et que depuis lors ngi ko ñi ngi ko mettre au frais. il ah, faut rappeler aussi il faut rappeler aussi maître que ko jàppee woon pourquoi aussi euh, ne pas le juger automatiquement foofu lan la fa droit wax. voilà xam nga droit. Mhm. loo jàngul mënoo ko tari. Mhm. ñaat dañ ko jàpp ci flagrant délit. Mhm. man dalal naa fi Pape Ndiaye Wolf mu ne ma euh, carrément euh, loolee warul am et que kii di baara dool yi liñ ko. liñ ko teg fee nekk de droit masul jàng du avocat lu may du traîner di ba yëpp ko prison boo affaire Pape Ndiaye il n'est pas crédible fan nag lay def. da ngaa neena am nay dossier ci man na ku dàq fan ci journal Sénégal ak monde bi yëpp s'appelle Pam Ndiaye demal faji te je a am na seen dossier ko génne nga xam du góor parce que mënu ko génne nañ bàyyi kàcc ak fenn waaw d'accord sama xarit bi Ndiaye dafa bañ Macky Sall fal Sonko ba mel ni jàmbu Sonko ba day far nag. waaw balance ma attaqué ko nii lu mu wax day fen barke alxuraan sama Pape laa tiim damay jël Pape Ndiaye muy fen il fen ci télé bi ban problème nga am ban problème nga am ak Pape Ndiaye. noonu laa amee Sonko mooy kiy fen rek ak Abdou Bara Dolly di sosal Macky Sall. ça dafa am une race de menteurs et d'insulteurs. Sénégal dafa dellu ginnaaw de xabaar bu mag bu mel ni Pape Ndiaye wala. groupe fenkat comme Pape Ndiaye Sonko Abdou Bara Dolly Mbacké très crédible mooy groupe des fenkat ak ñeneen ñoo xam ne xam ngeen lépp le groupe des insulteurs mm. ñoom Tunkara ñoom ñooñu ñoom Akhadatoo xaw ma lan ñooñu dof yooyu ñoom Assane Diouf vraiment Sénégal moo dellu ginnaaw Assane Diouf conseiller municipal. Euh, euh, euh, Assane Diouf sa xarit la woon kat yow. boobu waaw mu ngi noonu. mais bi muy ñëw dafa ñëw doole. Ah. man kuy néew doole ñu indi la. Hmm. embarqué ci avion. man dama am xolu yërmande. Hmm. maa dem aéroport teeru ji hmm. la lu ma fayee yëpp sama kër Almadi jox ko étage mu kese rek mu <laughs> ba mu demee tere dama saaga lan laa ko def maa ko plaidé rek ah, saaga kat nga daal di koy plaidé. en fait kat du yaa fekk saagakat bi. kan moom. waaw mais du war affaire saagakat. nga plaidel ko man dama foogoo rek ne. Hmm. li ma jiitaloon. mooy ab sénégalais. ba amoon teraangaam ak États-Unis indi ko fii mu nar a sonn ndeysaan sama xol tooñ ma ma ne xam nga saaga mën nga mën nga tuub maa ngi Abdoulaye Wade ñu ne ko bàyyi gi keroog maa ko bassin bu bees tàq boo xam ne couleur crevette ay chaussette ak caleçon ak suède maa ko jox ay jean ay chemise un lem na yëpp. depuis trois ans mu fi de xam nga soxla ko lu ma trois ans mu màgget mu jur ko war fajiri ni yii la ma mayoon bu dee waaye kii kii booy baadoo la kii du gor kii maa ko sauvé maa ko jox añ reer lekk ko deux cent mille francs mu ne ma amul muy sama sama yaay Amérique laa jógee aw ma dërëm sama yaay ma deux cent mille francs may ko di ko dama jox sa yaay jël cent mille francs ne ko dañuy déplacé ma man du ma defal di non kon ñëw ma sutura dafa dem ca Pam Ndiaye ca Walfadjri. waaw démb yàq lu mel ne. te journaliste bu mag boobu nga xamante ne émission bi. moom rek la nit ñi di seetaan foofee ca Walfadjri. waaw intéressant léegi dama dem foofu. nekk fii jamono ji Sénégal 7 tamit. comme yaa euh, ngi jot euh, fii man mag la day jël <laughs> émission boobu waajooju dof bu fenkat boobu la Assane Diouf dem jó jóoréer yi ma ko may. wala nag booy caleçon yi suen maay. da nga ko mën ay caleçon. ah wala sirip dafa war sirip mu sol. ko amul slip. bi nga ko may ëpp ko. pot daan na fii brosse à dents ah jox ma douzaine caleçon ak euh, ak sooy ba tàq. ngir sama armoire maître ñëwoon fi pour wax. Assane Diouf nekk fi di tux yamba. par ba xale yi wax ma ko. Assane Diouf jëm doxu <laughs> léegi euh, man rek lay saaga lu may fay léegi ma continuer ci essentiel voilà nañ ñëw si l'essentiel léegi perte la faut saboter émission bi voilà bu nañ ñëw vraiment de l'essentiel voilà nañ ñëw si l'essentiel perte divertir waay ah man dama la